Gaston nga di promoteur bi tëggoon lamb ji doxoon ci diggante Bombardier ak bala gay 2 daat na ci àddu waaye it mi ngi wax ci règlement bi nga xam ne jàpp nañu ne nag dañu ko war a xoolaat du rek amateur de lutte yi ñooy ñaawlu njeexital gi nga xam ne am na ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 di combat bu doxoon seen diggante ci samedi ji ñu génn yemoo ko benn fan ci weerum janvier promoteur bi daat na ci wax waaye waxit ci avertissement yi nga xam ne nag atax na kii di Bombardier am ndam ak ci kanamu rek. ki nga xam ni moom mooy bala Gaye 2 nee na nag nañu xoolaat bu baax a baax bi les règlement dal na it ah, ci kaw ñi nga xam ne ñoo doon arbitre ndax yàpp na ne lañ leen fa tege woon loolee matale wuñ ko benn yoon ah, nee na it sax tey jii bu fekkoon ne Bombardier dafa daan Balla Gaye ah, ñu jox ko ndam loolee Balla Gaye 2 dina accepté ne moom nag daanu na waaye Gaston wax nañ ne rek ne nañu xoolaat li na mel waaye ma nga cey woo waa CNG rek ñu xoolaat doxalin bi ba tey bàyyiwul benn yoon arbitre yi ndax ndax Gaston wax nañ ne nag dafa dañu waroon a respecté ñaar fukk ak benn minute yi nga xam ne combat ba moom lay duré ci diggante ñaari mbër yi waaye loolu it nañu ko indi ay coppite buñ sukkandu itam ci règlement bi sax wax na ne nag bu fekkee ne am nga juróomi avertissement di nga rek boobu boobule combat même bu fekkee ne benn minute rek lamb jooju duré muy nag benn règle boo xam ne jàpp nañ ne dafay rek liggéey yu mbër yi ginnaaw ñoo ñee sax dina tax ne dinañu mën a dem ak li nga xam ne moom victoire combat bi dox ci diggante Bombardier ba tey Gaston di ci yàbbi moom doyen promoteur yi wax na ne nag dina daje ak Eumeu Sène ci dimanche 27 mars jile atum 2022 waaye li nga xam ne ñeel na Lion bu Guédiawaye yi moom Gaston wax na ne nag mën naa dajeek Boy Niang 2 Gris Bordeaux wala Eumeu Sène ba tey rek dara leerul nag ci loolee ndax promoteur bi nga xam ne moom a dëkk ci Louga la mu wax rekk ci jamono ji mooy dina teel loolu mu àddu ci ki nga xam ne moom moo nekk prochain adversaire bu Balla Gaye loole nag nee na dina ci xalaat bu baax a baax laata mu ci yee yàbbi